mbokki taalibe yi mbokki téléspectateur murit point info euh, yéen ñi nga xam ne saa su ne yéen a ngi topp seen site bi nga xam ne moo leen di leeral lépp lu ngeen soxla tey ji nag di seen émission daayira en ligne muy seen troisième numéro ñu defee ko fii ci Taïf Mbàkke ngir dalal sunu gan yu tedd yi nga xam ne ñoom lañ fa yéenee jox ñu nuyoo su ko defee ñu dugg ci li nga xam ne mooy laaj yi waaye ñi ngi feggoog sunu ndeyjoor euh, sunu invité ak sunu ak ci càmmoñ bi su ko defee ñu jox rek sunu mbokk mi mu présenté wu. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi tudd Serigne Moustapha Diop nekk euh, président responsable communication bu section Taïf nekk secrétaire général bu cellule de base di daayira Daaru Minam. jërëjëf sëñ Moussa Diop ci nuyoo bu am solo bi nga xam ne nuyu nga ko te waaye ci présentation bi nga xam ne yaakaar naa mbokk yi jàkkaarloo ñun danañ xam jëmm ji nga xam ne moom lañ jàkkaarloo kon su ko defee ñu jox sunu mbokk mi nga xam ne moo nekk ci suñu wetu càmmoñ mu présenté wu moom tamit. jërëjëf waa Mouride info kon asalaamaaleykum euh, man maa ngi tudd Ajaratu Awa nekk ci section Taïf di secretaire général bu section bi en même temps di membre bureau fédéral di trésorier. wilaya femme secrétariat wilaya national nationale ma dëkk nag fii nag tey ci Taïf kon ñoo ngi leen di nuy bu baax te di leen ziyaara. jërëjëf sunu invité yi nga xam ne ginnaaw bi ñu dégloo seen présentation bu leer bi su ko defee rek dañuy si ci sëriñ Moustapha Diop. ñu di ko laaj section bi nga xam ne mooy section Taïf mu gën nu koo leeral ci nan la séddali ko euh, ban man koo xam muy. waaw kon euh, mel na ne sëñ Maam Dame bu ñu déggee laaj bi bu baax dañuy dellusi ci section bi section nag buñ ko waxee entité la entité nag dafa am ci fu mu sosoo kon ginnaaw boo xamee ne bureau fédéral jàll na section mooy nekk li nga xam ne mooy gën a rëy ci bureau yi am section bi nag mi ngi xàjjalikoo ci ñetti sous section ñenn ñi nekk wilaya adulte ndax léegi adultes yi ay wilaya lañ bi ñu jógee ci congrès bi def nañ leen léegi ay adulte muy wilaya adulte wilaya femme wilaya jeune kon ñetti sous-section yooyu ñoo séddalikoo ñoo ànd mu nekk section bi section bi nag ëmb na ay daayira yu baree bari waaye ñu xam ne daal sous sections yooyu moom ci la section bi xàjjaliku ne dégg nañ li nga xam ne leeral na ko jëmale ci section bi mooy ni mu séddalikoo waaye rek ñu bëggoon a xam rek section bii di section Taïf ci yan programme lay dox wala ci yan texte lay dox ndax méngoo na ak li fédération bi dox wala. ñu ëpp ñu ngi koy bàyyi xel te it liggéeyam lu ràññiku la kon wuutewul dara ak li nga xam ne mooy statut bi ak règlement intérieur bi nga xam ne moom ci la ñuy dox ñun te ku ne xam ne bu ñu waxee daaru xudóos rek xam ne ay intellectuel ñoo fa nekk intellectuel yooyu nag. liñu taxawal nga xam ne ab daayira la dañ ko tek ci kaw ay charte bind ay esthétique ak règlement intérieur yu wor ñu ci jaar kon dal mel na ne duñ wuté dara ci section bi ak règlement ak esthétique bi lim joxagn rek ci la jaar. jërëjëf mel na ne laaj bi leer na nañ ci nim ko tonto kon dañuy ci rek ci sona Adja fassiyene ko laaj tamit ci niñ déggé Moussa wax ci wilaya femme. ñu bëggoon rek mu leeral ñu lan mooy wilaya femme ak lan mooy doxalin wilaya femme ndax gis nañ ne jigéen ak moroomam fu nu dajee xëy na tënk fa lu xaw a kii dana dana dana des waaye ci ñoom nan la ñuy ban système lañ am di ko doxal ci doxalin woo xam ne liñ tënk danañ ko mën a xam waaye li ñuy doxal ak liñ leen sant danañ ko mën a leeral. daam lool ah, sous section wilaya femme nag noonu nga ko déggee. Euh, mooy su section bi nga xam ne moo tënk jigéen ñi ci biir daayira bi euh, dafa am daayira yoo xam ne nii ay jigéen lañ ndax euh, daayira boo amee ñaar fukki nit ak juróom da nga am droit taxawal sa daayira bu ñu taxawalee daayira yooyu ba pare dañuy taxawal lu ñuy wax comité directeur wilaya femme ci biir comité directeur wilaya femme boobu lépp luy wàcc lu ne bu wàccee ci bu bu bu jógee ci daayira yi dafa war a dem ci comité directeur bi liy jëw ci comité directeur bi bu fi jógee dafa war a dem ci daayira yi loolu mooy tax ñun lépp loo xam ne moom lañ bëgg a waxtaane wala lépp loo xam ne moom lañ bëgga def di mën a jàll normalement ndax dañ ciy waxtaan ci biir bureau comité directeur mu dem ci biir daayira yi daayira yi jëfe ko delloo siwaat ko ci biir comité directeur bi comité directeur boobu bu ko jëfee nag comme li sëñ Moustapha doon wax naan sous section adulte jeune femme bu ko defee nag ñu soog a dellu nag ci section bi yi jébbal fa li nga xam ne mooy suñuy activité eh, jërëjëf soxna Adja ci mel na ne liñ la laajoon tontu nga ko xanaa rek dañuy dellusiwaat foofu rek am ci loo xam ne soxla nañ ko pour ñiy seetaan mën a xam eh, wilaya femme donte xam nañ leen ne dañuy nekk ci waañ yi ak ci wa ak ci marché yi seenu dajee nan lañ koy defee ak nan lañ mën a dajee ba dajee yooyu mu mën a doon loo xam ne dana tënku. Euh, wilaaye femme nag euh, seeni daje dañuy daje par euh, ay bis bu ne ci biir ay bis bu nekk boobu bu ñu daje fukki fan ci weer bu nekk dañuy daje comité bi li ñuy waxtaane ci daayira boobaa ci comité bi dañ koy sotti si pour waxtaane ko fukki fan ci weer bu nekk dañuy daje pour waxtaane loolu bu ko defee du yàq dara suñu liggéey ndax dajee ngoon lay doon ndax sëñ maam daam dama bëgg ngeen bàyyi xel bu baax a baax ne liggéey bii di liggéeyu daayira dañu koo jàppee ni suñu liggéey fañ jëm ëllëg du suñu fii dañu fii fii lañu war a waajale suñu bopp ëllëg kon looloo tax suñu liggéeyu daayira bii du bokkul ci li nga xam ne dañ ko caaxaane moo tax ñu xam ni ñi nga xam ne moom lañ ko war a jëfe ñu di ko jëfe te kenn du manqué buñ koy def buñ koy def kenn ku nekk da ngay bàyyi li ngay def ñëw jëmbët ci li nga xam ne mooy sa la ndax liggéey fa nga jëm ëllëg ndax sëñ Cheikh moom liggéey bi daf ci doon daf ciy waajal nit ñi daf ci doon préparer nit ñi pour ndax jamono dafa toll foo xam ne nii gis nañ ni lim doon waajale nit ñi egsi na ndax ci biir daayira yi rek ci la ñu mën a toog di ci waxtaan di ci tënk loo xam ne nii lu ñuy jëriñ ëllëg la loolu moom ma di la ko bàyyil xel bu baax a baax a baax njaay marché meeg lépp lu mën a doon it téewut moom daayira bi moom bokkut ci li nga xam ne moom la ñuy jaaxaane bu daje yi waree am day am incha allah ajuma ju jot dañuy daje fukki fan ci weer bu nekk comité directeur bi dafa da filaay femme bi dañuy daje waxtaan defar seeni bu dee cotisation yi la wala lu mën a doon lu ñu war a verser wala lu mën a doon ñu def ko ci foofa lu war a waxit mu war a delluwaat ci daayira ñu waxtaanee ko foofu. jërëjëf kon mel na ne question bi nga xam ne laajoon nañ ko soxna si leeral na ko kon dañuy dellusi rek ci sëñ Moustapha Diop xam naa dañuy dellusi ci question boo xam ne waroon nañ koo commencé. ndax section bii di section Taif bokk na ci section yi ñu mujj a taxawal wala bokk na ci section yi nga xam ne moom lañ njëkk a taxawal su ko defee tamit eh, ci beneen laaj bi ma boole ko rek mooy yan programme mooy programme mu section. Serigne Mame Dame euh, kon mel na section bi di section Taif euh, ni ko règlement bi waxee rek ni lañ koy taxawale ndax réglement bi dafa wax ne bu ñu demee bu at mi jeexee muy mois de janvier dañuy taxaw ci renouvellement daayira yi su ñu demee ba mois de février ñu def renouvellement comité directeur yi mooy sous section yi ñu waxoon moom comité directeur benn le tour bi rek mooy wuute waaye sous section moom mooy comité directeur su ñu jàllee ci loolu nag dem ci mois de mars bii ñu nek. su boobaa ci la ñuy dugg nag ci renouvellement section bi kon ñu xam section Taïf mom, comme ni règlement bi waxee ñuy doxee ci wàllu renouvellement yi rek noonu lay heure bu renouvellement d'aéré yi ba d'al. ba def renouvellement comité directeur yi bu ñu renouvellement section at mu jotin ñu def ko mësuñ ko jël euh, programme bi nak li ci programme mom yaakaar naa ndax bo xolé daayira ni mu composé wo manam buñ ben la waxon buñ doon jël ben commission commission rek manam programme am rek doyna na sëkk ci at mi na lu melni social xëy na bëgguñoo sore ci programme yooyu di ko séwéle ndax laaj bi mën na cee jëm waaye mën na ñoo xam ne daal programme yu yaatu lañ am rawatina ci wàllum développement rawatina ci wàllum social ci santé jëm ci communication jëm ci organisation jëm ci culture wàllum njàng mi ak yar loolu daal programme bu ci ne am na ci dama xamul nag ba xam ban programme lañ bëgg ñu jukk ci ko pour waxtaane ko ci. jërëjëf mel na ne doxaliinu section bi leeral na ko. waaye ma am ci eh, xëy na laaj bi dafa desoon mooy ndax section bi jamonoy sëñ Mbàkke lañ ko taxawal wala jamonoy sëñ Cheikh maanaam ci section bi ndax dafa bokk ci section yi mujj a judd wala dafa bokk ci section yoo xam ne ñoo njëkk a judd beneen bi topp mooy gis nañ ne euh, dañoo xool ci li nga xam ne mooy seen programme bi ngeen doon def muy euh, journée euh, congrès bi ñu gis ne Taïf moo raw ci section yi ci nan la rawee. Taïf ñu ngi ko taxawal ci jamonoy sëñ Cheikh ci liñ dégg. ndax boobu mel na ne tut tànk lañ waaye jamonoonte nañoo ku mel ne Serigne Issa Diop mu ñuy wax historique gu section bi ba sëñ Cheikh wooteeg ba mu joxee carte ya ba mu dellusee di leen laaj te mag ñi tur yi sax xamuñ ko woon mu leen koy leeral kon xam nañ ne foofu la sosoo ba ci baatu congrès sax bi mu leen koy wax bi mu waxee congrès mag ñi dañoo dem nam na bi ci guddi gi ba sonn ndeysaan xamuñ liy baat bi ñu doog a delsi ne ko bu ñu ko laabiré woon dañu gën congrès mooy lan mu doog leen a leeral lan mooy congrès kon nga xam ne sëñ Cheikh dafa xawoon a jiitu nit ñi ci lu sori loolu daal mooy wàllum euh, loolu beneen laaj bi euh, lan moo tax mu jiitu euh, waaw section Taïf moom li tax mu jiitu mooy fii dañoo amul xàjj ak seen ci jeune ak femme ak adulte ni may toogee ak soxna yi ne la ñuy toog ak yi ñun ñëpp ñooy bokk réunion bokk xalaat loo lu la jeune bi wax boo demee ci femme ba moom nga fay fekk boo demee ci adulte moom nga fay fekk loolu nag bu ko section di doxee kenn mënu koo jiitu rawatina ci wàllu mobilisation moom fu ñu génnee rek macha allah ndax day fekk ñëpp déggoo kenn du am moroom ji xaar ma yàlla bu ñuy génn daal ñëppay àndandoo génn buñ nee duñ def nangam it ñëpp kenn du ko def kenn du gis ko koy def loolu daal mooy suñu yëpp sëñ Moustapha mel na ni kon yaakaar naa leer na nañ xam naa dañuy delsi ci soxna Adja euh, muy euh, laaj bi nga xam ne moo mujj ci côté am su ko defee ñu delsiwaat ci sëñ Moustapha Diop ngir gën a mën a tàggatoo li nga xam ne mooy mbokk yi kon soxna aja bëggoon nañ rek nga leeral ñu gis nañ section bii di section Taïf Euh, ci wàllu mobilisation maanaam ci euh, surtout ji jigéen ñi euh, lan mooy secret bi nga xam ne mooy secret wilaya femme bi nga xam ne muy jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk fii Taïf lan mooy seen secret ci wàllu mobilisation rawatina ci biir li nga xam ne mooy daayira yi ngi def yi ñuy def ci biir koñ yi. xanaa nag rek tege ci yoon ndax liggéey bi tegee ci yoon rek kenn du sonn ndax sëñ Cheikh Gaynde ma daf doon wax ne laaj leen nit ñi lu ñu am te di ko def fu ñu xam comme ni sëñ Moustapha waxee rek mooy li ci nekk. ndax euh, section dafa am dafa am tëralin bu mu war a tëddee te yoon dafa am lu mu wax dafa wax ne maanaam section bi daayira yu fa nekk yu ne bu matee ñaar fukki nit ak juróom yu nekk nañ ko taxawalal daayira bu dee góor nañ ko boole ci góor ñi bu dee jigéen nañ ko boole ci jigéen ñi kon nga xam ne section Taïf dafa dafa tege ci yoon ndax daayira bu nekk boo matee ñaar fukki nit ak juróom instance ba nga bokk dañ la caa boole ñun nag ndigal li nga xam ne moom la sañ Cheikh joxe dañuy wax ne ñun lañ ko ñun la ko njëkk a jox du ñu kenn njëkk ñoo jot ndigalu sëñ Cheikh Gaynde Fatma ndax dafa doonoon jàmbaar joo xam ne nii di premier di xalifa Cheikh Mamadou Moustapha ba nga xamee ne diggale na daayira fii gone yi ak jigéen ñi ñoo ci jiitu maa ngi dégg ci xisaw bi sax comme ni ko sëñ euh, Moustapha waxee léegi ñu ne bi sëñ Cheikh ñëwee ñu ñu wax ko ne ko gone yi jigéen ñi de jàmbaar lañ ci daayira bi nee sëñ Cheikh daal di ree daal di daal di ne daal di wool leen ma mag ñi nee neen keroog bi ñuy ñëwee ne baa sëñ moodu jiite sëñ bu sa moo jël kolam takk ko ci baatam ra raam wuti sëñ Cheikh Gaynde ma ne ko Mbàkke dama lay wuy maa ngi lay wuy si de waaye dañoo wax ne gone yi ak jigéen ñi de daa jàmbaar lañ ci daayira waaye loolu de Mbàkke dañ koy tuub suñ soxna yooyu jàmbaar lañ loolu waaye ñun ñëpp ñu ngi koy tuub te fas yéene nekk di daayira kon loola daf ñuy topp loolu dafa topp gone yi ak jigéen ñi boo suñ jone tey fi mu ne nii jigéen ñi tey boo taxawaloon tey daayira di wax ci daayira tey looy wax ci daayira fekk na ñoom takk ndax yéen njaboot gi di tax mobilisation yomb fi mooy lan sëñ ci Moustapha wax na ko léegi nee na moom dégg naa ñu wax kon ñoom dañu juddoo ci biir daayira xam nga doomi daayira taxawal ko dafa yomb te suñ njaboot yi dañuy doomi daayira yoo xam ne ci biir daayira bi lañ juddoo ñu yar leen ci biir biir daayira ndax sëñ Mbàkke Mohamed suñ waaju baax ji dafa doon wax ni loo bëgg ëllëg ak si biir dimbati sa njaboot booy dem di leen ci yóbbu ñoom bi nga xamee ni ñoom dañoo juddoo ci biir daayira juddoo ci toolu àllarba ak yooyu yëpp loolu lépp dara dootu leen ci jaaxal ñu topp nag seeni waajur ndax bu fekkee ne waajuru jigéen dafa nu ngoo topp waajuru góor waa doom doom it ñu nu ngoo topp topp ay waajuram kon loolu mooy mobilisation bi nga xam ne point fort bi nga xam ne am nañ ko ci liggéey bi ci liggéey suñu ceex bi ndax wax dëgg yàlla kaar kaar macha allah yàlla nañ yàlla la fal cat te may ni ñu xéewal gu baawaan goo xam ne nii njaboot gi fu ñu bëgg a egg yàlla nañ fa egg ndax li nga xam ni moom la sëñ Cheikh doon doon doon doon wax ñoom ñu ngi koy wane bu baax a baax baax vraiment li ma doon wax naan pépinière bu ñu ci kanam tuuti pépinière bu sëñ Bakhy bu jógee bu ne l'islam ak àddina dinañ xam ñan lan la sëñ Mbàkke Mouhamed def waaye sëñ Cheikh Gaynde Fatma kenn ku ne xam na lim def ci ci yoon wi ñu ngi sant ñëpp bu baax a baax a baax a baax di sant yàlla bu baax ndax koo xoolal sëñ Mamadou ba Lo mi nga xam ne dafa nekk fii ci ci section Taïf di am ay bis yoo xam da koy amal gone yi jigéen ñi ak góor ñi di leen dajale di waxtaan ak ñoom ci seen diine di waxtaan ak ñoom ci nan lañ war a mën a dundee nan lañ war a mën a jàppee lislaam te loolu dafa manqué te ñun yàlla dañu ko may ci biir section bi ci taxawal daa daayira bi sëñ Cheikh di ñëw di wax daayira ne sëñ Modou Lo Mbéri fekk na seen maam taxawaloon jamoon jënd jëndal ñoom ñëpp ay carte xamul woon xamagul woon sëñ Cheikh li mu jubloo wax dajale xaalis bi téye ko ba sëñ Cheikh bi mu ko waxee daf koo joxe daara ji kenn ku ne jox la sawkaat kon loolu dafa doon chance fii seen maam yi li ñu fi liggéey sa ay sëñ mën njaasan yeneen ak yeneen li ñu fi liggéey wax dëgg yàlla ci njaboot gi nii rek la mën a demee ndax ñoom dañoo takkoonuk laxasaay delluwuñ ginnaaw benn yoon xooluñu dara bëgguñu dara lu may bi kon loolu li nga xam ne mooy li ñu may chance sëñ maam daam loolu mooy li ñu may chance ndax yéen daal kar kar macha allah yàlla na leen yàlla fal jël. man sëñ Moustapha xam naa ne question bu mujj bi ñu ñëw ak yow rek mooy bëggoon nañoo xam rek membre bi nga xam ne moo nekk ci biir daayira bi membre bi ndax dafa am âge bu muy toll mën a dagg carte wala. Eh, âge boobu mu wax mooy bis bi mu juddoo ndax ñun ñi ñëpp xam nañ ne bis biñ juddoo lañu suñu waajur yi daggaloon ay carte ci daayira bi ba sax bu njëkkoon dañ bu buñ soxlaa koo defar kayitu juddu dañu xool carte daayiram nga xam ne kon fii moom ñu ci ëpp sax amun jugement ndax kart woowu moo leen di wan na leen bis sàngam la juddu woon kon loolu yaakaar naa ci bisu ngénte bi lañ koy tàmbalee dagg. Eh, jërëjëf eh, yaakaar naa leer na kon mel na ne membre bi nga xam ne moo bokk ci daayira bi kon as bi nga xam ne moom la war a am pour dagg carte kon wax ne ni bu juddoo lay doon kon loolu nekk na mel na ne mooy sero bi nga xam ne moom ngeen am ngir mën a téye mbooloo mi kon loolu ñi euh, wax dëgg yàlla ñu bari mën na cee war nañ cee mën a jàngatee xanaa nga résumé ñu rek li nga xam ne mooy euh, taxawiinu section bi ci li ko ni ko texte bi tënkee mooy xëy na euh, da ngay jékki-jékki doonub section rek wala daa am foo foo jaar. ni ko kii bi tënkee texte yi mooy. soxna Adja xaw na cee dugg tuuti mooy ci wàllu daayira ngay tàmbale cellule de base boo amee ñaar fukki nit ak juróom yoo xam ne ñoo bokk fenn fu ñu dëkk nga xam ne ay bis yu ne dinañ ci mën a daje su boobaa ñooñu dañuy mën a nekk ab section ab ab daayira ñaar fukki nit ak juróom buñ nekkee daayira bu mat juróomi daayira juróomi daayira yu bokk fu ñu dëkkee mën a daje ñoom it ci. ñeent fukki fan ak juroom yu ne ñu mën a dajee benn place dañuy daal di tudd ñoomit sous section. section fi mu tàmbalee mooy ci daayira ñaar fukki nit ak juróom yoo xam ne ñoo bokk fuñ dëkk te mën a dajee ay bis ju ne mën nañoo taxawal daayira suñu taxawalee daayira juróomi daayira yu ne mën nañoo taxawal sous section ñu tuddee ko sous section jeune wala sous section femme wala sous section adulte ñetti sous section yo bolé daal di am section kon fofu la section tàmbalee. Moustapha kon dañ lay jox rek nga tàggatoo su ko defee rek euh, nga résumé euh, xeyna li nga xamné mom lañ dëgmal muy bis bobu muy bisu magaluk Taïf gi daal di yan solo la jotaay bi am ak lan la mëna jural. mu kilifa yoy fi nekkoon té yalla dogal muy magaluk 11 mars ñu ci magalal Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ak Serigne Mbacke Sonlo ak Serigne Abdou Fata ak euh, mboolem. kilifa yi fi bàyyikoo ñu leen ciy fàttaliku euh, loolu nag dañuy jox comme li mag ñi daan wax ne nit sax bu la defalee lu baax da ngay ñaan yàlla fekk ab bisam ba def ca yow loo xam ne dañ ko koy faye loolu nag ñun moo ñu dal ci mbir mi kon mu mel ne bis bi moom duñ suñu bis la ñun suñu bis la vraiment loolu moom ñi ngi koy waaj bu baax a baax te ku fi ñëwit di nga xam ne ñii di màggal li ñu màggal jaral na leen. ñoo ngi invité ñëpp daal bu soobee yàlla dara du manqué euh, tàggatoo bi nag dañ koy jëmee ci sant rek am daam ci site bi wax dëgg yàlla ñun buñ téyee micro bi dañuy kontaan ndax Murit Info moom jàngal nañu lu bari daal ndax Murit daa war a joxe information te amul bu amu doon Murit Info yi di ko jàllale feneen kon nag suñ téyee micro boo xam ne am Murit la comme ñun dañuy kontaan vraiment lii moom kontaan nañ ci bu baax. ndax murid euh, euh, micro bi fi ne dañ ko jàppee ne suñ mbokku taalibe le comme ñun niñ ko téyee nii dañoo jàpp ne suñ mbokku taalibe lañ téyee parce que murid lañ ci bind te ñun murid lañ kon loolu moo tax ñu taamu si leen pour ñu def lii ñuy def nii. wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf kon ci mel na ne leer na naññ xam naa dañ lay jox rek nga tàggatoo euh, waxaale tamit euh, résumé waale bis bi nga xam ne tamit moom ngeen dëgmal te ten jataayoo woon ko léegi nii su ko defee rek euh, nga wax nu lan nga gis ci jataay bi nga xam ne moom nga amal tey ak lan nga ciy seen ci kaw tàggoo bi nag bala maa tàggoo damay sant bu baax a baax a baax di sant su section wilaya femme bi nga xam ne soxna Bamba da koo jiite ñu doon ay jàmbaar Euh, tay buñ taxé fi di wax ñoma tax ño tax ñuy wax euh, daayira yi nga xamni ño ñoo nekk ci biir dëkk bi ndaam minatu tay euh, daaru khudus madina daaru salam daaru rahman daaru minam ak ak bayla ñuy jigen ño xamni ñu jambaare ñi nekk section tay fi yëpp ci turu soxna Bamba ñoo ngi leen di sant bu baaxa baaxa baaxa baax te xam ñoom na li señ cheikh doon junju te gi ndax gis nañ ci lu bare bare bare ah di santit nak ci jotaay tay bi Euh, vraiment dañ leen di sant yéen Mouride info ndax lii mënuñu koo am te lu ñu bëgg la ndax dañu bëgg kenn ku nekk kuy dund ku ne ci àddina xam lan mooy jubluwaayu sëñ Cheikh ba kenn ku nekk mën cee noot sa bopp te xam ni jubluwaay bu am solo rek la bëggoon a dimbali doomu aadama yi rek la ko defee woon. ndax euh, bi ko biñ ko laajee ne ko sëñ Cheikh Gaynde ma dañ lay wa laaj sëñ Touba ndax dina daj jamono dafa wax ne ah sëñ tubaa dina daj jamono ci ndax ci daayira yii ma ko diglee ci lay daj jamono te kenn ku nekk tey weddiwu ko. kenn ku nek seigne Cheikh lim waxone waxoon kenn tengay nekk tëngëj sa Cheikh dafa doon jëm jo xamni visionnaire la won ñun nak mënu mënuñu koo fay li ñuy ñaan yalla suñu borom bi moy bis bi nga xamni mom lañ fi wote tay muy bisup magalup 11 mars gi nga xamni mom lañuy defal seigne Cheikh Gaynde Fatma mak seigne bakay mohammed Cheikh Abdou Fatah ak njaboru seigne Cheikh gep ñuy wo ñepp nak ñepp nañu ci fekk ci bis bobu ndax dañ ko bëgg a ñukal ndax dañuy wax ay daayira ak yooyu waaye sëñ Cheikh kenn ku nekk da nga ko war a delloo njukkal sëñ Mbacke Mouhamed kenn ku nekk da ko war a delloo njukkal ñooñu ko bëgg a delloo njukkal ñëpp ñu ngi leen di woo ci bis boobu jullit yëpp ñu ngi leen di woo ci bis boobu yéen ñi ngeen xam ne yéen a jël si lii dañ ci am mbégte di leen ñaanal yàlla suñu borom bi avancement jëm ca kanam moom lañ leen di ñaanal section Taïf daal ñoom kontaan nañ ndax lii lu ñu yàgg bëgg la ndax wax ci wax ci mbooloo dafa jafe waaye waxit nag loo xam ne nii loo gëm la dafay yomb li nga gëm bu ko sa morom ko gisee déggee gëm ko moom mu jëriñ ko kon loolu dong moo tax ñuy wax lii ñuy wax li ci invité ñëpp nag bis boobu nag benn bis rek la ci ñun section Taïf bi amuñu lu may benn bis boobu nga xam ne mooy bisu màggalu 11 mars bi ñuy amal ñuy woo jullit yëpp section Thiès niñ ko waxee dañoo seexook moom waaye section yëpp ñun ñun yëpp la ñam jullit yëpp la ñam jigéen ñëpp la ñam ñoo ngi woo ñëpp daal xar yi àndandoo yi soppe yi ñëpp ñu ngi leen di woo ci bis boobu Mouride info ñoo ngi leen ñaan yàlla suñ borom bi defal leen ndam ba ngeen am ay télévision télévision fi ngeen bëgg a egg yéen ko xam yàlla na leen fi yàlla yeggale ndax lii ngeen def ci yoonu murit bi dafa am solo lool muy muy lu am solo ni ngeen tuddee seen bopp vraiment wane ngeen ko. kon ñoo ngi sant bu baax sëñ maam daam di am mbégte mu rëy rëy rëy jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi Mouride Info mel na ne jataay bi nga xam ne moom lañ àndoon ak yéen invité woon ci euh, sunu mbokk yi nga xam ne ñoo farewoo fii ci Taïf muy section Taïf muy Serigne Moustapha Diop mi nga xam ne bokk na ci responsable yi nga xam ne ñoo dëkk fii ci Taïf ak soxna Adja mi nga xam ne moom lañ àndaloon ci émission bi mel na ne li ñu tudd fii ci ay points yëpp leeral nañ ko ndax solo si nga xam ne mooy solo sa daayira en ligne mooy fexe euh, murit gi nga xam ne mooy comme ni nga ko waxee muy murit gi dafa war a informer loo xam ne dafay gën a yaatal li nga xam ne moom murit gi ñu gis ne nag daay liñ tudd li tax ñu indi émission bi muy émission daayira en ligne mooy gis nañ ne am na yeneen yuy judduwaat ci murit gi te li li liy gunge murit gi mooy ay daayira loolu moo tax kon ñoo ngi leen di sant di leen gërëm gi lu leer li nga bëgg euh, am kon mel na ne dañ leen di jox dig daje ndax tey mooy troisième numéro bi di jox dig daje suñ quatrième numéro incha allah ak yeneen i jataay yeneen i daayira wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.